ci affaire Dubaay euh, porta poti bi comme ni ñu koy faral di waxee mooy douze publique yi nga xam ne moom lañuy ñuy def jigéen ñi foofu. Mm-hmm. moom nee na ci kàddu yi mu wax moom Alima ji mm-hmm. nee na nañuy nañuy bañ di toog rek di di di wax ci mbir. Mm-hmm. te soo seetuñu lan moo waral. jëf. maanaam bu ñu xool fee rek mais na nañu xool lan moo waral lii. nañu xool ci ginnaaw lan moo ca nekk jigéen ñi ñi ñuy teg yenn yi nee na jigéen ñi dañu leen a jàppe loo xam ne daal. dafa mel ni daal ay foowukaay lañ def jigéen ñi. te mhm. leen forcer ci leen defloo yenn yi yoo xam ne daal. Mhm. c'est pas joli quoi moom dafa ñaawlu jëf yi ni mel dem na ba ni argent sale moom daan na ko jëfandikoo waaye boobu amutoon choix dafa sësoon rek waaye dootu ko defati ci àddunaam. dafa dem ba xam ne loolu moo fa sës mu jëfandikoo ko jëfandikoo ko mais ba mu ci génnee. waat na ci yàlla ne dootul dellu ca la mu nekkoon noona. waaw ndax moom am na dignité am na fu mu bokk am na doom te dafa bëgg a jox doomam benn avenir bu baax. mooy kooku borom maîtresse d'un homme marié kooku rek kooku di waxoon ki waxoon daa dof xam nga kon moo génnaat di wax waxu nit ñi. waaw kon liñ ko waxoon ñun ñëw na dofut. yaa ngi dégg. waaw léegi li mu lay wax mooy si loolu. Mhm. Alima Gaajo xaw ma madame ma xam nga madame Dial noonu la tudd. Marème Dial du noonu la tuddee boppam. xoola nee na moom dafa am dignité. Mhm. du noonu. nee na dafa am doom. nee na dafa am mbokk. nee na dafa am fu mu bokk. Mhm. xoola ba mu nee jëfandikoo na loola rek booba la far lii lépp. Mhm. le mot daa jëfandikoo naa ko fa mu tolloon ba di ko jëfandikoo ñii tamit foofu lañ toll di jëfandiku ñooyam rek. d'accord ki naan nelawee ki naan ne ci mbedd mi benn la ñëpp a màndi mais xam nga lan moo leen wuutale la muy yàq ak la muy wax. yaa ngi dégg Aliou li may wax te wax ko gis nga affaire ay Dubaay bi nii. Mhm. est-ce que xam nga affaire Dubaay. ñun ñoo teelu tànnand te réseaux sociaux boobu ñëwul xanaa am loo tubaab yi ñoo doon ñëw fii nekk ay tubaab yu baax. Ah. Euh, ñi ñi nga gis fii bëri na ñuy génn fii di wax ci lañ profité ci tubaab yooyu am li ñuy am gaaw mm-hmm. mais daanañ ko def te booba du du naar yi lañ ko doon defee. te fii lañ ko doon defee. fii ci Sénégal am na ñoo xam ne fii lañ ko doon defee mais dama lay wax ni. comme nit ñu ñu ñu dem àll ci gémmañam mm-hmm. ñu saw ci gémmañam yaa ngi dégg mm-hmm. loolu vice la vice xam nga vice vice waaw mooy ku nekk dafa am lu lay daaneel yaa ngi dégg mais waaw mais képp ku seytaane man kanamu jigéen dootu la doy yu yu jëfinu xaj moo lay doy parce que tamit ngay dem am na ñoo xam ne fii wax nañ ko seeni jëkkër ñoom ñoo koy def dañ buñ ci nekkee dem ba am fuñ toll dañuy jël galaas am nañ ko def mu loo ko mu puub bëri na fii am na ñoo xam ne dañ la am lu ñu leen di def ñuy mbaw comme xaj comprend ngi ni mu la wax façon sëyin boobu dañuy wax Dubaay bala maa dem Dubaay laa la wax de fii amoon na fi ay milliers yoo xam ni mu bu ma neexoon damay toog ne la diw mi ak diw mi ak diw mi ci milliers nangam ci baar sàngam boîte sàngam lañ lañ doon nekk kon tubaab yooyu la gars yi doon profité di ci am xaalis tubaab yi nag bi ñu ñëwatul dem seen yoon léegi naar yee fi ñi mujjee ñëw nii naar yi lañ fi tombeel mais hmm. bari na ñooy gis fi ñu jël seen ween pompe ko defar seen taat yi ñëw di la jaay bari wax tubaab yi njëkk ya doon ñëw daan wër daan wër si fii ku ñu foowal ci ñoo la ñu daj ñu gaawantu tibb ci liñ ciy tibb moo tax léeg-léeg su ma gisee ci réew mi ñu indi ko xam ne day nekk di mbam mbam mbem mbem après naan day défendre ay nit Aliou sama xol day tàng jër parce que kooku na mu amee na mu ko defee rafetul bu ñëwaatee bëgg a def dafa bëgg a yokk loola Aliou waxa rek. d'accord léegi. Euh, dem Dubaay bi. Sénégal la njëkke te après. dinaa la si wax lu leer a leer. kon yow bokk nga ak Nabou daas benn gis-gis ndax moom nee na nañ bañ a génn Sénégal lu raw lay xew Dubaay. noo ba nii ñi mujjee ñëw naar yi lañ tombeel mais ñu njëkk ña tubaab yi lañ tombeel mais tubaab yi daan nañ leen ko def am na ñu daan seene fii comme xaj fii lañ leen daan fekk seene la comme xaj di la def jëfinu xaj di la boole ak ay xaj fii mbuur am na jigéen boo xam ne xaj lañ ko booleel xaj bu dugalee bu daanoo day neew yi il faut mu def cinq minutes mu reesaat pour mën a génn yaa ngi dégg bëri na fii léegi affaire bi nag fii la commencé après yow doog a dem ca Europe bi mu jógee Europe ci la am na ñaari femmes yu sant Thiam xaw ma dañ bokk ndey ak baay France mhm. seen euh, audio yi ñëw na mhm. mais topp kaa bii di ñëw dinañ ko leeral fii te ñoom ña nga fa di defante duñ ay sénégalais du kaa lu tax kaawu leen ko ok parce que bi mu bi ñu nekkee der bu ñuul dem foofu xaara bi ñu nekkee der bu ñuul dem foofu bokk ndey ak baay di werante boobu lañ la tooñ tooñ ma effectivement parce que tey euh, kii euh, naka la tudd émission yi américains yi di def émission yi français yi di def ak keneen ak keneen di def Aliou der bu ñuul lañu wax waxuñu der bu weex xoola am na ñu xam ne libi fa lañ fa lañ amee xaalis libi fa lañ amee xaalis Aliou xoola kaay yëpp bi ma fi jógee dama ko topp ba mu leer nañ kenn ku nekk xool affaire bi maamam kan la ndayam ak doom ji kan la. d'accord am na ñuy nekk fii di rëy musóor di jéem ay pompe ween ak alal ju bari. <laughs> lii bi lañ jëlee xaalis bugguma tudd ay tur mais ci kanam dinaa cité am na histoire yu ñu fi réglé woon yu bëri ndekete demeewul noonu ñun. ño ñoo xam nga dara soo koy liggéey wax dëgg yàlla da ngay jóg nag après xool fan la pay yi di jóge fan la ak nan la yaa ngi dégg mais am na yu bëri wax dëgg yàlla dinaa si taxaw bu baax pour ñu leeralaat ko fii di wax ne ah lii kat lii la lii kat lii la ku ko dégg nag wax dëgg yàlla boo ko déggee nga mun du ma man nag du ma xas nit ci deret du ma xas nit si maam du ma wax nit lu ñaaw mais sañ naa wax ni ah réew mi kat amoon na lii amoon na fi ñu xam ne nii xoola ñu mag lañ ñu mag a mag niñ daan utiliser jigéen ñi loolu loolu lépp génn na yi ngay gis nii yu bëri di génn Aliou. Hmm. dafa génn nii rek mais xool fekk lii ñi ko fi jur ñi ngi fi ba pare damaa jaaxle dangay dara day xew Dubaay ustaas yeeg waxkat yeeg topp Dubaay Dubaay ñoom ñooñu rek bu ñu jeexee seen biir ñoom ñooy tëgg promoteur yaa ngi si seen biir. <laughs> toog di wax. nit mooy nekk fu sori. mu xam ne yow da ngaa siiw Aliou mu woo nga wuyu mu ne la damaa soxla juróom-benn jigéen yu mel nii mel nii mel nii tëggkatu combat yaa ngi ci dëkk bi déggoo ma de. Mhm. dégg nga wala déggoo ma. Dubaay gee ñuy wax lu ñu wax Dubaay nañ wax fii Aliou xoola boo jël nit boo toogee fii nekk promoteur promoteur yaa ngi fi de. tëggkat yi comme ni ñuy tëggee làmb. gars yi noonu la ñuy tëggee jigéen ñi du leen yóbbu. nit xëyul xëy. dem ci benn dëkk Aliou Aliou bu wax dofee dégg niti Aliou waxal rek ñun ñii nañ defarwaat buñ defaraatoo suñ toogaay affaire bi jeex tàkk kay jote xoola man mii am na foo xam ne jotewu fa boo xëyee dégg ma fa war ngaa am nga droit wax jimboori moom kan moo ko fa jotale nu mu ba dem fee mat naa laaj de question boobu question bu am solo la. wala boog question bu am ah, solo. waaw voilà. Ah. muy noonu ndéygéey hmm. ci biir kàddu yi Alima gàjj kii leeral na ko jigéen ñi dafa mel ni fowukaay la leen di jàppee am ñoom nee nañ jigéen ñi ñoo def seen bopp fowukaay. waaw am na fay mën a wax. Ah. ni la. Hmm. am na ñoo xamante ne ñu ngeeg seen dignité. ba tey ba tey ak seen fulla ak seen fayda bu fëkk yóbbu leen. mais des fois tam di nga sës ci miir sësu boo xam ne euh, la fa nekk rek. waaw loolu ñoom la ñoom la ñoom ñoom la intéressé loolu ñoom ñoo xam xëy na lu tax ñu koy def li mu def nii xëy na moom la intéressé peut-être fii am la c'est la la c'est le passé le passé c'est passé. mais ñi ci bari léegi dañ leen di nax yóbbu leen. lañ leen di wax ak lañuy fekk du doon benn dañ leen defloo par la force loolu laa la bëgg a wax. ju fii dégg naa fii lu ñu fi def defloo nit rek moom la neex. déedéet déedéet waxee noonu. non non kenn naxul kenn. ko foofu rek am xale bu jigéen boo xam ne moo waxal boppam moo waxal boppam. moom français sax lay làkk. waaw nee na. ki ko doon yóbbu comme li nga wax. dafa am ay promoteur yoo xam dañuy woo ndaw si ne ko ah am naa liggéey bu mu utal. waaw mbaanu mooy ki doon wax sama mag moo doon dem. non du moom nee na ki ko yóbbu. wax ko woon loolu dafa dem ba àgg. dugal ko ci benn hôtel. yóbbu ko ci benn néeg boole kook benn naar. bi mu ñëwee dañ na ko par la force da ngay tëdd ak man te façon bi muy tëddeek moom mooy nekk ci affaire yi di di ko di ko ko kiiwal ba naar bi tuur ndox ci kawam. mu ne ko yaa ngi tuur ndox sama kaw mu ne ko nii mooy comme li ngay wax sànq. vis la pour moom mu yëg boppam. ci noonu mu ne ko àggaleel mu àggale ba xayta yi commencé génn mm-hmm. mu ne ko lii nag mu ne ko danga koy lekk mm-hmm. bi mu paree ñu jox ko xaalisam mais nee na moom dafa bëggoon a xaru bi mu génnee ci loolu mm-hmm. ndax loolu ngorom may ko mu koy dund waaw Aliou ma wax la dara waaw xam nga sànq dafa am lu ma la junj waaw parce que dama la junj ma ne la su fekkente ni tey day tey damay résumé rek su fekkee jeexul bii di ñëw ñu détaillé yaa ngi dégg parce que wax naa pour nit ki génnee tuur dugub. yooyu noonu yëpp jigéen ñi dañ koy def. Mm-hmm. comme ça am na fi ñoo xam ni. Mm-hmm. nit nettali na ma. Mm-hmm. dañuy dem ba dëkku naar yi yaa ngi dégg. toog fu xam ne nii da ngay yaakaar ni fii arxuraan ak nangam rek moo fa xew. da ngay toog nii rek mu bës benn bouton xoola am lu jóg nga gis baar taxaw sa kanam comme ça mais li ñi nga xam ne ñooy créer affaire yooyu Aliou. di jëlee ñii fii di leen yóbbu ak ñi nga xam ne ñoo ko fiy dox ba pare xoola affaire bi dafa jóg de am ñu bokkaale ci biir bokkaale ci yuuxoo yi di yuuxoo sàcce yi ñoom lañ war a yuuxoo am na ñuy yuuxu nii de ah, ñoom ci sàcc yi lañ ci caga ji lañ yuuxoo ñële léegi fu dool nii buñ la wanoon ci yuuxoo bi amatoo kenn koo yuuxoo parce que ki nga waroon yuuxoo mi ngi ci biir yuuxoo yi di yuuxoo nit mm-hmm. sénégalais yeggaguñ si lekk neefare yi yaa ngi dégg. Mm-hmm. non mais ñoom ñanga ca yeneen. est-ce que parce que am na xoolal ba pare kaay ma may la dara est-ce que xam nga naar yi naar yi nga xam ne ñoom ñooy milliardaires yi. du seen film moo feeñ nii de est xam nga loolu. lu tax ñoom bu ñu jëfandikoo ba pare dañuy indi seen seen seen bon yi ñoo ñooñu dóor ñu filmer la mais du milliardaire bi moo nekk noonu. li ma tegtal yu leer laa lay tegal. Aliou bu am na yoo xam ne mënu ma toog fii di la ko wax dama ne moom bu paree ci yow bu paree si ndaw si booyam lay jël booy bi di dóor mooy ñu ñu filmé noonu mais milliardaires yi kenn filmé wu leen. seen ñëf du feeñ. déedéet ba pare milliardaires yi nekk euh, kii naar yi am na si sénégalais yu salte yoo xam ne ñoom soxlawuñu leen duñ leen jëfandikoo xanaa ni mu lay mun a jëfandikoo mooy am na ñoo xam ne si bi ñu am mooy xaj bi di suyeeg yow si la ñuy daanu ñoom hmm. léegi il faut ñu jox la xaj bi toog di la xool xaj bi. yaa ngi dégg mais yooyu yëpp dama ne la ay détails la yoo xam ne mun na am bu ñu ñëw atee ñuy détaillé détaillé bi ñu ciy détaillé nag mooy fexe ba nga xam ni dañoo yee ñi nga xam ne demaguñu si loolu pour bu ñu munee yeew ñu yeewu ñun nag dañuy wax rek message yàlla moo koy dugal si bopp ne mm-hmm. mais wax dëgg yaa ngi dégg mais man wax dëgg yàlla boobu ba léegi maa ngi gëstu di laaj fan la jóge fan la commencé ñan ñooy jaay ñan ñooy promoteurs yi promoteurs yaa ngi fii di yuuxu ci biir am na ay kilifa yoo xam ne promoteur lañ. mooy mooy affaire Dubaï. daa ngi dégg ñun waa Feeling Dakar. ñun dañoo war a bàyyi affaire Dubaï bi daal. ñun laaluñu Dubaï bi de. du dëgg non non non parce que fi ngeen dugg kaa bi. parce que kaa bi li ngeen ci wax kaawu Alima Gadio boobu moo indi lii yëpp nañ leen bàyyi ak seen problème. yal nañu yàlla dolli sutura daal. non mais loolu moo fi nekk. dañ ciy wax. xam nga yaa ngi dégg. xam nga ñun suñu liggéey mooy. waaw ñuy leeral comme ni nga ko waxee jeex na waaw mais duma ci wax nangam sàngam. waaw ok parce que problème bi mooy ñay dem Dubaay ñëpp. nekkul loolu lañ fay def. effectivement yaa ngi dégg am na ñuy dem ñoo xam ne liggéey moo leen yóbbu. mais dañoo bëgg a wane ni affaire bi. affaire bi yàgg na fii ci dëkk bi. maanaam day soog a mais phénomène bi fi yàgg na. yàgg am nga tuba wax naa la fa mu jógee di sii ba pare nii nii nii nii bëri na etaas yooyu romb ñu necc bëri na ku lay romb yor oto bëri na koy gis ak bët promoteur la kon daal borom alal ñooy tëgg combat mais képp koo gis mu jóge fii dem bi muy dem ci lu leer la dem man maa la ko wax. am nga lépp lu la leer soo ko dem. waaw ba pare am na ñu xam ni nii lu leer lañ dem te nit ñi xam nañ leen. te ñoom dañoo defe ni woon affaire yi du toll fii waa mais ñun li ñu siy wax rek mooy coow lu bëri loolu ñu bañ ko ba ñu ñu moytu ko te defaraat suñu toogaay ñun bu ñu defaree toogaay bi fii affaire ba day dañ fee. parce que bi fii la déparé wax naa la ko daal. wax naa la lu leer am na ñoo xam ne nii ci lu leer wax naa la ñaari femmes yooyu di kuloo fële. lu leer seen audio ñëw na damay bàyyi nag ba bii di ñëw. ñu traité seen affaire parce que bu ñu xasee dem ba foofu bokk ndey ak baay di jiiñante foofu ñun lañ yàpp wala kan lañ yàpp. ñun lañ yàpp jeex na. mooy femmes yooyu sant caam rek. te nekk France danañ ci ñëw. yaa ngi dégg ci ñëw ci ci ci beneen. femmes sant caam te ñu nekk France rek. dañ dañ bokk ndaay ak baay fan yi ñuy jàppante juboo jàppante affaire yooyu. yaa ngi dëkk Paris. waaw France lañ nekk daal. d' accord ñu ngi euh, rafetlu. yooyu ñuy def nañ ko.